mbokk yi tey mooy mardi 27 juin 2023 allahu akbar tombeek muy 9 si weeru zulhijja macha allah 1444 tey mooy arafa yàlla na yàlla may ñu xéewal li ci nekk yépp allahuma amin ya rab yàlla lu muy goreel ay nit ci safara ci bés bi amul beneen bis bi ni mel bu muy gorelee noonu ay nit ci safara yàlla na yàlla musal ci safara ñu ñëpp dugal ñu aljanna amin ya rab li gën ci lu ñuy wax ci bés bi mooy lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax mook yonent yi ko jiitu woon comme ni mu ko waxee alayhi salaatu wasalaam nee na xayru ma qultu ana wannabiyuuna min qabli laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kon nañuy répété lii laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa ala kulli shay'in qadir na nga ko répété da nga koy wax na nga koy wax macha allah ginnaaw ba ñu wooree yàlla da ciy jéggal nit bàkkaaru ñaari at yàlla nañu yàlla jégal suñuy bàkkaaru suñu bàkkaar yépp bàkkaaru ñaari at at mi wees asana al maadiya ak at bi nga xam mooy en cours yi kon ginnaaw tey moom mooy arafa nit ñi ñu ngi arafa fa la ñuy nekk mooy ca màkka fa la ñuy nekk ba ay timis dem musdalifa fa la ñuy nekk musdalifa la ñuy jul timis ak gée fanaan fa ba le lendemain ñu préparé jël ay xeer seen xeer yi dem sàndi ji jamaraat bi maanaam bésu tabaski bi après rendi seen xar kon suba mooy tabaski allahu akbar suba mooy premier jour tabaski ku nekk na ko xam ci lislaam naam mboq yi Sénégal dañ ay julli lañ wala ay lan lañ dee gis ñoo xam ne nee na ñoom aha tey mooy arafa lé mais suba ñoom du du seen tabaski ginnaaw suba mais loolu fan lañ ko teg xel nanguwu ko diine nanguwu ko texte alxuraan ak sunna nanguwu ko xel nanguwu ko yow imagine bu ñoon bu newoon bu doon dañoo ne tey bu doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne tey mu ngi dund tey mu ngi arafa suba mu xëy macha allah dem jamara sàndi rendi xaram ne tey moom suba mooy tabaski yow lan ngay wax kañ ngay tabaski est ce que danga naan noo damay xaar ba ginnaaw suba ndax damay déglu diw ak diw ak diw te yonent bi sallallahu alayhi sallam mi nga xam ni moom ngay topp moom nga bëgg te moom nga bëgg a nekkal biir aljanna yowm alqiyaama bu dee topp nga sunnaam lim la digal yanay nekk incha allah al maru ma man ahabba yowm alqiyaama xel nangu ko yow ñu ne tey Sénégal waa tey mooy arafa léegi mais ñun ginnaaw suba lañuy tabaski suba moom dañ koy bàyyi nii rek mais loolu xel nangoo ko texte nangoo ko diine nangoo ko sax subhanallah mbokk yi nañu ragal yàlla jamono ji ñu nekk nag tey ku nekk na jël responsabilité am te nag yàlla dina àtte ku nekk te nag ku nekk sa biir bàmmeel yow rek kon nañuy wax dëgg yaa ayyuha alladina amanu taqullah wa kunu maa saadiqin nekk ak tamit ñuy wax dëgg tey jëf dëgg kon tey mooy arafa suba mooy tabaski mooy premier jour tabaski incha allah liman shaa fal yu'min liman shaa fal yakfur